Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi jeur jeffe Serigne Touba di wax jaraw lakk mam Cheikh Ibrahima Fall di nuyu bu baax mbokk taalibe yi ñu bokkal Serigne Touba yépp mbokk Sénégal yépp ak képp ki xamanteni rek sa mi ngi suivre sunu chaîne YouTube di Serigne Lamine Bara Fall tay ji nak euh, ñu ñëw fi di géejawaay ara dogales di len may ay conseil santé conseil santé bi nak tay liñ ci gëna indi tay muy ñi xamanteni am problème gastrique problème gastrique nag boo leen ko déggee mooy ñi nga ni dañu am problème mu biir buy ballonné biir buy jooy biir buy yooxu biir buy faral di metti rawatina sax ñu am ulcère ak rawatina itam ñu am estomac ñooñu nag liñ ci gën a gis mooy ñi am ulcère ak estomac bi ba ñi nga xam ni sax dañu am hernie aiguë hernie taal lépp luy problème mu biir rek tey jii tey tem bi ñu indil mooy guro ak petit cola yi nga xamante ni ñoom ñaar ñoo koy faj. incha allahu rabbi loolu nag nekk na li nga xam te ne vraiment lu am solo la danañ leen ci may ay conseil santé waxtaan ceeg yéen jàppale leen nan ngeen koy defee et tout ba nga xamante ni lépp rek dina baax incha allah kon nag mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare bu baax di kontaan ci yéen saa su ne di leen fàttali rek saa su ne bu dee bëgg ngeen. di am suñu vidéo yu ni mel mën ngeen abonné ci suñu chaîne YouTube bi incha allahu rabbi yi ngeen amee bés abonné te bés cloche bi incha allahu rabbi yu baax remède naturel yi ñu may yépp conseil yi ñuy def yépp ak lépp li nga xamante ni ñoo ngi leen koy may rek ngir jëriñ suñu réew gër jëriñ askan bi incha allahu rabbi danañ leen ko defal ci seen euh, deuxième partie bi danañ leen won naka ak ndan lañ koy defee incha allahu rabbi kon nag mbokk yi ñu dem seetaan publicité ñoo ngi dellu si waat léegi léegi jërë ngeen jëf merci bare woon na ay nit yi nga xamante ni saa bu ñu wut ay ñaan seen ay ñaan ci ndomba lay nekk wala ci téere jamono ji nag ñu bëri seen ay ñaan ci jaaro lañ koy def jaaro bi nag ñu bëri dañuy faral di wax sax Serigne Lamine Bara Fall war na koy jaayee lu ëpp million ndax ngëneel yi mu àndal dalay aar pour cat dalay aar pour làmmin day ubbi wërsëg xaalis day mën a ñëw toog bu baax musal la ci rabak jinneeg seytaane la ca dooleeku nag muy wàllu ubbeeku ci xaalis mën a ñëw xaalis mën a toog ndax bari na ñi nga xamante ni amoon nañu amatuñu bëri na ñi xamante ni dañuy am mais ay ay la yéwén as bi ñuy am it day yàqu ci seen loxo activité commerciale ci wàllu bayre bépp activité bu nit di def rek macha allah ba ci sax ñi nga xamante ni ñoom dañu tukki bo leen ñu wowe incha allahu rabbi dañ leen ci jox ay preuve ak ay exemple yu bare bare bare ñi nga lu ñu mel daloon na leen fa ñu tukki nekkon ay am problème mu am problème mu am problème mu jaara bi da koy safara incha allah woo rabbi ñu jox la information yépp par whatsapp information bop bo soxla ci jaara bi lu la ko mëna jox ci carton yalla ak baxam ak yermandem jërë ngeen jëf léegi ñetti petit cola la ñi nga xamanteni ni lañuy dagat ñetti petit cola bu dee guro bi ci mën nañ jël exemple ñetti doomu guro la ñuy jël voilà mbokk yi gis ngeen ko ni daanaka moom monsieur bi def na liggéeyam <clears throat> def na juge bi léegi nag mbokk yi dañuy jublu ci filtrage bi léegi dañuy xelli à peu près lu ñu doy ci suñu jus demi verre moom mbokk yi comme ni nga waxee benn kudd lem rek moom xam nañu ni danañu

li mu mën a faj ci jàngoro bari na li mu mën a jàppale bari na incha allahu rabbi te estomac ulcère problème drépanocytose yooyu yëpp macha allah rabbi da koy faj kii nag jus bi da nga koy def en permanent di ko naan à volonté saa bu jeexee rek da ngay defaraat beneen di ko naan à volonté ci kàttan yàlla bépp jafe-jafe yii mu tudd nii nit am na ko incha allahu rabbi dina defar affaire yu bari dina régler problème yu ci kàttan mbokk yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñiy faral di sa tànn suñuy vidéo soo bañee suñu prochaine interview raw la bësal ci abone nga bësaale cloche bi incha allahu rabbi jaa ngeen jëf merci.